léegi affaire de gokh la comme ni koy waxee à chaque fois tay nak nga wara a presse bi so open de presse tous nga mbëri ñew nañ def nga spectacle. bokk entonne ñu jublu ci liggéey bi. ginnaaw ma sant yàlla julli sant bi sant sama ñaanu waajur ñaa ah? ñaanal sama papa fu mu teud yalla ko yalla yeureum xale ko aljana bu baax baax baax baax a di nuyu maam tan borom daaru bu baax borom daaru ma ngi nuyu bu baax di nuyu wa sigori di nuyu wa daaru musibu baax wa di nuyu wa daaru musibu baax. sama dëkku papa Thiolli dëkk bi nga xamante ne Fara cosaanoo muy Daaru Musi biir Thiolli maa ngi leen di nuyu bu baax di sant sant si ñoom ñaan bu baax waa Touba Ndiassène Tivaouane waa Kër Seen sa sat bi ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax ñaan bu di leen nuyu bi yëpp du nuyu waa Guédiawaye boo yi fi nekk yëpp boo yi fi nekk yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax uh-huh. waaw ma seen fay daal sama xool dafa fees tey ba may génn uh-huh. kontaan naa si ñoom bu baax a baax leen wax ne gis naa gis naa taxawaay bi kontaan naa bu baax a baax a baax si ñoom uh-huh. ok ñaan am na solo tey yaakaar naa ne mbooloo bi fi génn kenn xamul nu mu toll ñaan tey yëg-yëg bi lan la wuy ma. ñool bi ñool bi. moom waaw sëggal nga xool caméraman yi ñu ngi ci suuf. tey yëg-yëg bi lan la ak mbooloo bi nga génn fii nii tey. waaw sant yàlla rek sant yàlla rek ah. waaw sant yàlla bu baax a baax di delloo waat njukkal Balla Gaye numéro 2. su ma mag suma kilifa di ko bu baax la da ngay numéro 2 su ma mag suma kilifa. ba ma leen sut. guy gi waaw ñoom ñooy suñuy mag ñoom guy gi xam nga Alioune say 2 Madji Mal su ma limee su ma limee damay juum quoi mais damay wax ñi nga xamante ni ñoom la village ngi teg ma tënk hmm. sant bu baax wax ñun amuñu ñoom ñu waa sut su ñoom la ñuy roy su la ñuy xool yaa ngi teg suñu bëggee làmb dinaa yàlla yonte bi ñoom la hmm. woo naa ko téléphone mais xam naa dafa jàpp mais dëggante woon nañ téléphone mën a moom mënuma hmm. naaj dëggante xam nga mu wax sama lu rafet mais maa ngi ko ñaanal baax la da ngeen numéro 2 maa ngi baax a baax a a baax la da ngeen 2 ko ñaanal bu baax jàppale na ma mais na ma contact simé ku na contact ak man jàppale ma entraîné na ma waaw ba naaj instant bii nii nii nii waaw ku dul buursin bu nekkoon cinq personnes bu ñëwee ma daal leen ci jël bu gaaw ñun ñëpp di nuyu waa Guédiawaye si sport yëpp ok am na solo Bamba Thiam yaa fi nekk ak Lamine dañ koy gàttal rek parce que xam na ne tey lii fi dajaloo ci mbooloo ñëpp dañoo bëgg a ñibbi si jàmm ñaa nga jëm ci combat test sénégalais yi ñu bëri na la dañ laa man dañ laa ëpp doole nga am adversaire boo mës sa am lan ngay wax. waa noonu la man damaa bëgg am umpale ma man loolu moo may neex man bëgguma làmb xamagul ma léegi mais lu ñuy gën a dem ci làmb ñu may gën a xam man nekk gu ma mbër sax su ma waxu defaguma dara ci làmb mais mbër laa bëgg a nekk mbër. mbër waaw mbër laa bëgg a nekk. ñaar ak maa ngi waaj bu baax. waaw ñu ngi lay nuyu mbër di nuyu ñi nga xamante ne nii ñoo jàkkaarloog ñun duñu seetaan waaye ñaar gis nañu combat bi nga voyage ici gis nañ combat bi nga fonk ko combat bi bañ nga ko. waaw dañ ay coono yu metti gis hmm. nañ yàlla si doonam may man dam ko wañ na daal. Hmm. ayca delluwaatal waaw combat bi fonk naa ko trop. Hmm. waaw bëgg naa ko bu baax sax. mais adversaire bi tamit gis nañu sa biir wax da nga melni à chaque fois da ngay déclarer la guerre mu melni amna lo na ni da nga ko dencal wala. waaw bourse bi am na jëflante. Hein? parce que dina la aduna lo gis dafa am àpp ah, sama euro xeet bu wutee génn day génn. loolu bëri moo waroon a génn génn mais lamb xeex la am bu mu bëree xeex dañuy taxaw xeex. Bour Sine gënu gudd ay loxo. taxaw samp jaaga taxaw samp jaaga ak moom waaw. ok ayca Lamine ba arro dara. lañ allah si kàttanu yàlla ko indi. ayca Lamine ah ayca ñaa adversaire bi ngay bëreel min na way lool bëree na fek ay champion yu nek yaakaar naa ne defetam bëri fi nga gis ko mook Eumeu Sène Junior nga gis ko moo Fils de Balla ak Bolo mbër yi gën a rëy ci géejawaay nekk ay espoir am na ñum ci freiné est-ce que xam nga combat bi nga jëm dimanche waaw lamb la rek lamb rek yàlla moo fu may ndam may ko fi ndam lamb moom boo war a daan da ngay daan mais dama ne la muur ànd ak combat bi hmm. waaj naa ànd naa suma ay mag yóbbu dund te ma si coach fayal ma ay coach entraîné ma teg ma ci yoon ku gisoon ñaabu ndaw bii ak ñaabu ndaw bi nga xamante ne am na différence bu bëri kon combat amul lenn lu mu ci sóoraale amul lenn lu mu ci xalat di ñaan yalla suñu borom suturaal may ma amul lenn lu may source si du lenn du dara. dañu gis nga dugg ci lamb 2017 ba tey progressé bii nga xamanteni amna ci yow ba ñepp diko wax est-ce que du handicapé ñaabu Ndaw ba limu bëgg def mu def ko poids bi. ban poids ana poids bi. tollu no man sa def no tollu machallah poids bi soo gisee yow ko man liggéeykat laa su ma liggey su ma ay coono man day wacc man kat la man xamoon naa ne su ma ñëwee du ma jël jël poids mën naa ko dindi parce que li may dama ko ñemee bëgg li may daj bursin ko dajee day feebar day tooy ah. wax laa la wax barki maam Tony Ibra Fall su ko dajee feebar ah. xeexa ko gënal dem kaa ñu lekk de loolu lépp garaawul ku mën sa morom nag waaw na ray si biir géew ñi ma ngaa dëgg sa bopp am njaay joxal jóob gisoo lu topp sama ginnaaw waaw waaw man jumte waruma 15 bologu bee laa jël 15 benn bologu bee 300000 la da am fu ma war dem ci làmb du Bour Sine moom mooy téye allah. mais moom nee na fii ah. nga koy yebee. waaw nga koy yebee rek mais boo leen taxawee ca sàtt doo ko yeb. Mm-hmm. waaw gannaaw làmb ji dimanche la loolu yëpp amul problème. Mm. waaw loolu yëpp amul problème moom moom moo doole. Mm. at bi siflee mu xeex wala lu mu wax yëpp lu mu wax. Mm. combat moom général Malick dafa génn géew bi cinq koy ñaan naw leen lay bëgg rek na taxaw bëgg dëggal boppam mu xool. na taxaw dëggal boppam mu xool. bu dëggalee boppam. parce que Serigne Touba Mbacké ma jóg mu daal. tuut mu daal. Ah. Bamba Bamba balaa woot am na say morom yoo bokkoon génération am na ci ñoo xamante bi ni ñimew ñoo jël avance su Bour Sine dayoo combat bi parce que lamb daan daanu mat matsinil moo ci am ak lu man di xew fi la lamb ji mën a yóbbu est-ce que yaa ngi koy bàyyi xel waaw naa ko baax lépp nii nga ñaar da ngay gis ñaari dox nii rek di jëm ci yëpp ñoom dund la ñii ñii ñooy lépp ñii ñooy def lépp lu ñaar sol lu ñaar di wax lu ñaar di def fu ñaar di dem man duma ci lenn dégg nga ma te ñii xamul lenn lu ñuy judo si man ci doole ci entraînement. Mhm. day taw sax. man dama am ambition dama bëgg lu may def. dama bëgg làmb ci mhm. dama respecté làmb. Mhm. man dara jom mos làmb làmb moomu deseen. làmb liggéey naa si lépp parce que Seydina Mouhamed entraîné naa dañ si ay coono xam nga liggéey naa ba gine waaye xam ni liggéey naa moo tax nga gis lii tey liggéey bu ñu man moo tax ñu topp ma ak jom ak fulaa fay man laa leen woon chaque jour mais lii nga lii nga jàkkaarlool mel ni màggal gu jeex ba ni ñi ñibbi lii nga jàkkaarlool nii tey yëg-yëg bi la yëg-yëg damay kontaan ci ñoom rek di leen gën a jox seen wàccuwaay di leen wax ni sant naa leen bu baax a baax a baax xamul tax lii nii man si seen mënu ma a nekk xale 2017 di dem di dem Gambie man kese di fa nekk di entraîné kese di dégg foofu noonu ay 3 mois 4 mois saison bi dem kon lii nii su ñëwee dama koy parce que liggéey naa ko démb mais ñoom ñu taxaw nii nekk maa ngi lay nuyu sa tur sant di la jégaluwaat bu baax a baax a baax samay supporter maa ngi leen di jégalu bu baax di leen wax je t'aime I love you so 挨。者，来。